di leen dalalaat suñu invité de la rédaction tey nag euh, ñu fas yéene seq waxtaan ak ki nga xam ne mooy euh, Ibrahima Fall moom nag euh, conseiller ci maire bu Fatick en charge de la formation professionnelle maire bu Fatick bi nga xam ne itam moo nekkoon ministre des sports balaa njiitu réew mi Macky Sall di tekki ma tànkam ci li nga xam ne moom mooy gouvernement bu bees bi kon bala muy rek ma bàyyi ko mu nuyonte ak suñu mbokk internet Euh, asalaamaaleykum maa ngi nuyu Sénégal di nuyu mbokku internet yëpp comme ni ko Ndof waxee di nuyu mbokku Fatick fi ñu bàyyeekoo euh, di sant yàlla julli si yonentam bi di sant suñuy waajur. Ibrahima xam naa sama laaj bu njëkk rek euh, tey ana naan ngeen accueillir li nga xam ne moom mooy nouvelle génnu gouvernement bi kii di Matar Ba gannaaw bi nga xamee ne nekk ngeen moom ànd moom yàgg liggéey itam. Euh, ak moom di militer moom ana nan ngeen accueillir nouvelle u génnam ci lii di gouvernement bi. Euh, sant yàlla parce que alhamdulilahi rabil alamin biñ ciy dugg dañ ciy dugg ak bisimilahi rahmaani rahim mu doon lu ñu yéene def ñu nekk ci ministère des sports juróom-ñetti at ak ñaari weer battre sax record. sa mhm. booy dégg ñu naan la ay François Bopp moo fi def sept ans. nit ñi ñëw battre record yëpp. ba pare li gën a neex ci loolu mooy ñu yóbbu baar bi foo xamante ne kenn mus ko faa yóbbu te loolu ginnaaw bi Macky Sall son excellence le président de la si ki nga xamante ne mooy doomu Fatick di suñu maire di Matar Ba di suñu kilifa donc jox ko ko dënk ko département sport ñu ànd ak moom mu qualifié ñetti yoon. Mhm. Euh, équipe nationale jël coupe d' ak basket jëlaat coupe d' Afrique de football. ba pare qualifié à toutes les catégories boo xoolee même u di yi ki U23 yeeg ñëpp qualifié nañ donc loolu noonu dañ koy sant yàlla. Mhm. dañ koy sant yàlla di koy sant mais aussi di koy sant le le président de la république son excellence Macky Sall donc loolu daal. Mhm. sant sentiment de satisfaction lañ ci am parce que boo xoolee peuple bi moo waxal boppam donc liñ waroon wax yëpp xëy na peuple bi wax na donc nit ñi nag dëgg la nit ñi ay émotion lañ yor nit ñi ay yor mais ala budd àdduna moom loo gis surtout que li nga xamante ne ay mbirum état la donc il faut que nit ñi di ñëw di romb di dem mais na fekk ne heure boo rombee rek yow li ci sa wàll ci taarix bi na ko ci bind te yaakaar naa ne ki ñu bind na page bi nga xamante ne moo gën a rafet ci histoire footballu Sénégal ci histoire sportu Sénégal mhm. donc loolu ñu ciy sant yàlla di ci sant population Sénégal di sant waa Fatick mais di ci sant aussi Matar Ba ci mat gi mu am ak yaatu bi ak ubbeeku bi mu ak yar gi mu am parce que nit ñi sax dañ la naan yaram moo ko may la mhm. donc loolu nga xam te ne suñu référence la moom seetu la si ñun donc ñun dañ koy sant yàlla tey jii fu ñu dox dañuy sigi mhm. tey ñun ñëpp ay Matar Ba lañ man dama kontaan dama dama bëgg mais dañuy teelu gën a sant yàlla mhm. dañuy teelu gën a sant yàlla xam naa di nañ ci dikkaat ak jaar-jaar bi ak it euh, réaction yi boobaak léegi euh, wante balaa loolu dama la bëgg a laaj jóge ngeen léegi ci li nga xam ne moom mooy euh, passation de service bi moom ak ki nga xam ne moo ko wuutu ci bopp ministère sport muy Yankhoba Diattara ana ci yan climat la passation boobu amee. climat émotionnel. Mm-hmm. émotion nit ñi tuur nañu rongoñ mais du ay rongoñu ay yeneen mais rongoñu xéewal la rongoñu jàmm ak lii dafay mel ni bi Sénégal jëlee coupe bi donc loolu la fàttaliwaat tey ci tey ministère des sports zone bi dafa fees dell muy dem ba nit ñi sax dañoo demoon ba fàtte sax ne dafa am benn caractère institutionnel officiel solennel donc ba li ngeen gis xew ja nit ñi kenn mënatuloon téye sa bopp donc loolu dañ ci dellu di ci gën a sant yàlla di ñaanal tamit ki nga xamante ne rakk la si ñun mu Yankhoba Diattara rakk la xarit la si ministre des sports mhm. donc ñu koy ñaanal yàlla fi mu fekk liggéey bi ful ko parce que tamit ndamu Sénégal ndam suñ ndam la ñun ñëpp nañ ko ñaanal nañ ànd ak moom gunge ko donc peuple bi jàppale ko te xam ne lépp benn la mhm. ala budd moom nit ki dina ñëw romb dem mooy li ma la rek mais saa boo ñëwee rek li nga ci war a def na nga ko ci def ba nga xamante ne ëllëg ak si biir kenn du la xool di lay jéppi effectivement wax nga ko léegi euh, comme institution la euh, ak yi ni mel nguur la nit dañuy ñëw ak a dem wante dañoo gis euh, li nga xam ne moom mooy daal génn Matar Ba ci gouvernement bi mu mu mel ni lu jur surprise donte comme li nga wax noonu yàgg nañ fa mais bi dogal bi wàccee daal xaw na jur xaw xaw na jur surprise gis nañ itam réaction yi bëri na lool ay réaction yoo xam ne ñenn ñi sax dem ba di laaj. ndax duñ ko del delloo si waat ak ci ministre ak yi demee noonu ndax yéen même gis-gis ngeen amoon. waaw xam nga euh, nit ñi moom kenn mënu leen tere ñu génn li nekk seeni xol kenn mënu leen tere ñu manifester seeni yëg-yëg Matar moo fees ci xolu senegal yi loolu yàlla moo koy def yàlla moo koy def tey ji bëri na fi nit ñu teg la fenn wàcce la kenn du la faale bëri na fi ñaata ministre ñoo fi nekkoon ñoo fi jaar jàll kenn waxul si ñoom kenn demandé wul sax ñu dellu si waat même bu fekkee ña koy def tamit du yoon mais am nañ ci wàll mun nañ leen ko nangul mun nañ leen ko nangul mais boo comprendre ni état di demee xam ne kenn éternel donc ala budd Matar dafa waroon abale dem parce que liggéey na ci lam ci waroon liggéey mm. man damay wax sax en français ne il est euh, à de sa gloire donc Matar kon daal dem bi dem bi lu yoon la quoi lu jaadu la. c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal xëy na nag lu neex du doy. Mm, mm. lu neex du doy mais gor rek mooy génne nit ñi nit ñi di yuuxu nit ñi di wax sport bi Sénégal c'est le peuple qui a parlé c'est le peuple qui a parlé pour Matar Ba donc xëy na moo ko fi liggéey. mais ndax yow peut que tam. jeune jeunes yi nekk foofu ca Fatick ànd ak moom est-ce que jàppee nañ ko noonu parce que gis nañ si ñoo ne sax génn ba manifester. ñun Matar lañ am. di di loolu yëpp déggoo li ma la bi mu génnee wax ñëpp teg nañ ko ci suuf parce que mat référentiel la Matar référentiel la ñun ñi jokku moom boo amee référentiel da lay servir de référence et Matar nous a servi de référence et continuera à nous servir de référence. loolu lu am la nit ñi nag li nekk seeni xol kenn mënu leen tere ñu génne ko à tort ou à raison nit ñi moom li nekk seen xol dañ koy kii xëy Matar fees na dell ci xolu Sénégalais yi loolu mun ko fi liggéey moo fi liggéey munoon na génn ñu jéppi ko mais alhamdulilah dañuy sant yàlla ba nga xamante ne tey woyam rafet na taarix bi mu bind Sénégal rafet na du du néew ma ne du am ku ko bindati mais du gaaw parce que on est resté soixante ans depuis les indépendances di wër benn mbir mënuñ ko am kenn mësul gis Coupe d'Afrique à commencer par man mii fekke naa ay génération yu bëri mais gis Coupe d'Afrique mu ñëw Sénégal nekk fi bañ téye Coupe d'Afrique bi kenn mësul toog tamit ba Coupe d'Afrique ak Coupe du monde fekkante biir palais yendoon doo fa fanaanoon doo te dañoo am lu rëy. yàlla daal ci moom la ko jaarale. yàlla ci moom la jaarale. donc tamit yàlla mi nga xamante ne moo dogaloon Matar nekk ministre des sports pendant huit de deux mois yàlla moo dogal tey Matar day dem la tête haute Matar day génn ko buntu bu yàmbalang mu dox daagu Sénégal yëpp ànd dëgg la nag nit ñi moom lu neex du doy fii mooy Sénégal lu neex di doy mais dañuy ñaanaat ñëpp ñu delloosiwaat xel yi. te xam ne Matar mi ngi fi. di servir le Sénégal Matar bu ñu fàtte ne est le maire de Fatick te bi muy jël maire Fatick président de la république loolu tamit c' est un fait historique boo xam te dañ ko war di fàttali président de la république moom moo ñëw ba Fatick def ak moom passation de service loolu c' est un fait historique benn affaire benn mbir la bu mus a am ci histoire politique du Sénégal wax ma ban maire moo fi remplacé ba président de la république bi defee de service amul donc ñaari mbir yi donc Matar il a écrit les plus belles pages de l'histoire politique du Sénégal et de l'histoire sportive du Sénégal parce que il a passé service avec le président de la République qui était le maire de Fatick mmh. ça c'était en 2012 en il vient il gagne la mairie de Fatick mu gañewaat ko ba élection yi mujj waa Fatick joxaat ko bopp mm-hmm. malgré yi ci xewoon ak yi ñu ci doon dégg donc nga xam ne kon Matar mi ngi ci xolu waa Fatick Matar mi ngi ci Sénégal te lépp lépp lépp lépp en tout cas man li ma jàng ci moom. Mhm. que ne àdduna mhm. ak Matar gën na maa tax ma gën a xam ne yaram mooy may lépp dem nañ sax ba nit ñi naan euh, réussite euh, discipline mhm. moom mooy indi réussite dafa yaru ku mel ni Matar bëriwul loo koy gis ci ay leader mel ni Matar bëriwul loo koy gis ci ay ministre donc ku mel noonu buñ ko amee dañ ko war a dañ moom surtout si jamono yi gën ko gunge barke boobu noonu mu amoon ci sport bi ñu continuer ko barke boobu teg ko Fatick. Mhm. Fatick gën dem kanam. parce que mhm. Fatick lañ am doomu Fatick lañ am. yaa ngi junj léegi mbirum politique politique foofu la ca Fatick am na ñu naan tey maanaam génn ba bu ñu ko génnee nguur gi bokk na ci peut-être militantisme am peut-être foofule ca Fatick. ak it euh, taxawaay peut-être bu mu waroon am te xëy na amu ko parce que léegi yoon da ngeen di dëggal loolu wala wala dégg ngeen tam loolu leen mel. ñu ne peut-être loolu tam ay question politique boo na si li tax ñu jëlee ko. déedéet man bëgguma ñuy comme ñuy ñuy jaxase les choses dama bëgg ñuy def la part des choses Matar dañ ko dënk un département ministériel. Mhm. muy gérer département sport def fa lu mucc ayib. jox ko Fatick pour preuve Matar bi muy euh, remplacer son excellence le président Macky Sall il était conseiller il était conseiller il était même pas adjoint maire ñu dem par la grâce de Dieu Matar remplacer le président Macky Sall ñu dem élection Matar gagné ñu delluwaat élection Matar gagné waat malgré les multitudes de listes ak borom doole yi fa nekkoon kon kooku amoon na njëriñ askanam nit ñi nag. spéculation moom gis nga bu mbir xewee surtout mbir bu mel nii te nga xam te ne Matar dafa def tekk Macky Sall def tekk n'est-ce pas moo xam li tax mu jële fa Matar xëy na dencal na ko lu gën sport Matar yàlla moo xam li tax tey mu yemale fii ay mbiram ci wàllum sport xëy na tamit yàlla mi ko sàkk dencal na ko lu raw loolu te xëy na tamit ah fi mu jëm ak Fatick mooy dàq sax fa mu yóbbu Sénégal man am naa ci yaakaar parce que nit ki def na ko fi jiw na ko fi Matar il est le choix il est l'aimé des Fatickois il est l'aimé du Sénégal il est le choix du peuple donc ku mel noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dafa doon am ay commentaires yu mel nii yu ni mel am na ñu gëmul nul n'est prophète chez soi donc nul ne détient le monopole de la perfection donc Fatick collectivité la man ak keneen ak keneen ñoo ci yem dañ ko war a defar pourquoi ñu jàpp ne Matar Ba kese à lui seul il peut faire Fatick non et les autres qui ont bénéficié des largesses du pouvoir qui ont bénéficié de la confiance du président de la République il y a des de très grands directeurs généraux mm-hmm. ñu ngi woon Fatick il y avait des ministres Matar il n'était pas le seul c'est que xëy na peut-être Matar moo leen ëpp bayre loolu day am te ku jiitu munoo bañ yenni yi munoo bañ yenn yi Sénégal fii Macky Sall mu ngi fi nekk di def lu am njëriñ lu am solo mu ngi liggéey mais nit xëy na gisuñ loolu ñu ngi gisee feneen nit moom munoo ko tere commentaire am li gars yi di wax le commentaire il est libre les gens ils sont libres de penser et que si yenn commentaire yi ñun dañ koy jël ak philosophie xëy na dina am yoo xam jëriñ dañ koy téye ça nous permet d'aller de l'avant hmm. daf ñuy gën a avancé lool hmm. daf ñuy gën a yokk njàmbaar daf ñuy gën a yokk cawarte c'est des feedbacks qu'on doit accepter parce que Matar est un homme public ba pare Fatick bi muy jiite Fatick vitrine la tey ñëpp dañuy bàyyi xel biir Fatick mais sant yàlla bi nga xamante ne Matar ak li mu mën ak li mu mënul mu ngi jéem di def pour que le devenir du Fatick waa soit meilleur. Mm-hmm. te loolu nag du Matar kese koy def peut-être que mooy capitaine bi mooy le maire mais nous en appelons a toute la population de mm-hmm. Fatick. Mm-hmm. y compris le président de la République qui est un administré de Fatick parce que bu buy wut état civil day ñëw Fatick ñu defaral ko ko bu ñëwee Fatick c'est Matar Ba qui est son maire. même les ministres qui sont promus tout récemment. y compris le ministre euh, auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la proximité et de la protection civile. Donc lui, c'est le premier adjoint au maire. Il a, il a sa partition à jouer dans le développement de Fatick. donc Fatick yëfu ñëpp la du yëfu Matar Ba kese ma gë gënu leen bëgg Fatick te ñoom duñ ko gën a bëgg Fatick ku ci nekk dañuy indi sa benn xeer ñu tabax li nga xamante ne mooy Fatick bi ñu bëgg donc et que le développement c'est un ensemble euh, daction yoo xamante ne nii buñ ko boolee moo am harmonie dinañ am liñ bëgg mais c'est pas parce que dañuy toog di profiter ci ay yenn occasion yi pour di jéem a tirer par là ah, non loolu je pense que du du du du yëfu nit ko conscient man dama jàpp na nit boo amee une conscience nga dëkk ci dëkk waroo xaar sax naan ay borom kër geeg taaw beeg ainsi de suite ku mën na def Fatick Fatick bi ñëpp la parce que tey ji ku fa amul sa doom di fay jànge sa waajur moom fa tëdd di noppalaku wala wala ainsi de suite ñun ñëpp ñoo bokk Fatick man mii di wax ak yow tey Fatick laa xëyee fa fanaani waat incha allah hmm. donc guddi guddi guddi lu mu am lu mu bëri bari lu mu néew néew lu mu diis diis lu mu oyof oyof laa jëm ak moom keneen noonu hmm. tey ji buñ doon génne Fatick waa yi nekk Dakar ñu bëri dinañ ñib sax donc nañ leen gën a jàpp ñu ànd ñu defar. tey ana lan mooy nekk seen taxawaay yéen nga xam ne yéen a ànd ak Matar Ba wante itam ëllëgam ëllëgu àndalu politique ak njiitu réew mi Macky Sall. ëllëgam mooy démbam mooy tey wax na ko Matar mooy suñu référence fi mu xool fa lañuy ñuy xool li mu bëgg moom la ñuy def. te moom xoolul fenn fulul le président de la république Macky Sall parce que si njabootu Macky Sall la bokk encore une fois il faut pas que gars yi na yi bàyyi di profité ci ay affaire pour di ëffalaate wala ñuy dem a teg ay xeer déedéet Matar gis nga ni mu weexee noonu di sol lu weex foofu la toll ci Macky Sall changé wul couleur tey la gën a am considération ci Macky Sall tey la gën a am estime ci Macky Sall tey la gën a jël servitude am jox ko Macky Sall loolu man maa ko tey jii tey tey jii. te chaque fois il le réitère Macky Sall suñu kilifa la suñu doom la mooy le président de la république di doomu Fatick dañ ko war a jàppale parce que ba lépp méttee Fatick la commencé donc pourquoi ñuy lâcher Macky Sall pourquoi pour lan pour quelle raison parce que ma Matar a servi a fait son temps et il n'est plus là wàcce na ko non kon boobu dañuy am une vision très très très très de la chose. ah d'autant plus que mu def huit si li nga qu'il fasse cent ans. qu'il fasse cent ans qu'il mais yàlla moo mais lépp loo gis dafa am app dafa am commencement am njeexital. effectivement non ñoo bokk kii sax ñoo bokk naa. ñoo comme ni nga expliqué noonu moo tax euh, comme ni nga wax noonu kii yam moo jeex. moo jeex jóge euh, te sax jeex boo xam ne nag yàgg na fa lool. mais nañ jàpp ne Matar peut-être moo jeex ministère des sports mais Matar ak Sénégal ndongoy Sénégal Matar ak jëriñ Sénégal jeexagul Matar day continuer jëriñ Sénégal Matar day continuer nekk ci wuti Macky Sall di liggéeyal Sénégal. a être tey mën nañu yaakaar ma ñu xaar njiitu réew mi joxaat ko yenn responsabilité. loolu la ñuy ñaan loolu la dafa faral di wax naan man nekk naa militant bi affaire di yëngu da koy xool mu ne leen daf ñuy woo nañu man je ne suis demandeur de rien man lenn rek. laay def mooy damay toog fu ma bu ma Macky ne woon dama toogal ma ci garab gee ak lu naaj bi tàng-tàng damay dem toog fa ba mu ne ma jógee foofu nga ñëw donc kooku bu la waxee loolu wax na boppam. ku daal ñoom ñaar réeroo wuñ. mu réeroo wax jee bëri nit ñi gas nit ñi dañoo xër di wax. Sénégal dañuy sot dañoo kontaan dañoo bég parce que nag Matar ko fi liggéey dëgg la. amul problème sëgëm yàlla mi sàkk ay nit sax dangay ngay jékki mu rey nit sax nga dégg ñëpp di caalit nit yàgg na fee toog naan yàlla mënoon na ma rey bàyyi fi diw taxul mu rey la bàyyi fi diw diw la rey donc loolu est-ce que wàññi suñu ngëm-ngëm ci yàlla dañuy continuer di gëm parce que mooy amal mooy joxe mooy nangu te àdduna lépp lépp lépp la dañ lay jox ne la teel nga sàmm boo ko sàmmee bu rafetee nit ñi gisal seen bopp wax donc ku mel noonu boo ko amee doo ko bàyyi duñ bàyyi Matar tey duñ bàyyi Macky Sall tey tey dañuy gën a ànd ak ñoom mel nañ mënoon def luñ doon def démb fukk dañ koy ful def ko ñaar fukk lu Matar doon taxawee benn dinañ gën a taxawaat ñaar ñett ñeent juróom ci woti Macky Sall muy gën di yëg Matar Ba parce que Matar Ba lañ am mais parce que Matar Ba Macky Sall la ñu joxe duñ xool keneen gisuñ keneen ku am sa leneen ñun Macky Sall lañ am Matar Ba lañ am Ibrahima euh, Fall lan mooy nekk sa kàddu gu mujj suñu waxtaan. sama kàddu gu mujj mooy euh, di sant waa Sénégal. Mhm. di jaajëfal waa Sénégal di masawu coono waa Sénégal xol yi fees nañ mais nañ leen delloo si waat xel yi delloo lépp ci yàlla santaat ko sant Macky Sall aussi mi nga xamante ne bàyyi na fi 17 millions de sénégalais jël Matar Ba jox ko espoir ba yàlla may ko ci ndam tey jii bu ko fa Macky Sall tegutoon. Matar Ba du am ndam bii. Mhm. donc bu lëg lekkee aloom ña ko gërëmee coy. Mhm. donc ñun dañuy sant Matar Ba di sant Macky Sall di leen di ñaanal wérgu yaram di leen di ñaanal kattan di leen di ñaanal yàlla yéene ki nga xamante ñoom am nañ ko ci senegal yàlla motal ko mu sut seen jort. Mhm. mu doon jàmm ñëpp doon dëkk ñëpp ñun loolu la ñuy wax ñun waxuñ leneen. lu Matar Ba wax lañ wax te li Matar Ba wax dafa leer naññ naññ naññ naññ mooy Macky Sall la Macky Sall la xoolu leneen gisuñ keneen. Mm-hmm. loolu daal laa amoon lu ñuy wax. di gërëm waa Sénégal di gërëm waa Fatick yi nga xamante ne def nañ déplacement bi. Mm-hmm. di gërëm ñëpp la famille politique. waaw ñëpp àdduna parce que tey ku lim juum tout monde était là-bas ñëpp fa nekkoon l'émotion était au comble ñi jooy nañ jooy bànneex ay kontaan nañ wóyal nañ ko jox nañ ko ay cadeau ñaanal nañ ko gunge nañ ko donc loolu rek doy na ci ay ndam donc loolu war na tax ñu sant yàlla mais nag tamit loolu ñaax la daf ñuy won ne ñun dañoo war a gën a continuer liggéey Matar dafa war a gën a continuer liggéey loolu doon def benn tey da ko war a gën a continuer def parce que Sénégal bëgg nañ Matar Sénégal won nañ Matar fi mu toll si ñoom Sénégal woon nañ Matar te buñ bëggee Matar rek bëgg nañ Macky Sall xëy na kañ soto fi am rek mais Macky Sall nekk ci xolu Sénégal. Ah, Matar ba <laughs> loolu yaa ko man maa wax loolu moo am. loolu moo am boobu nga gisee Ibrahima ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi lay euh, jaajëfal yow tamit. Ah, di suma frère bu baax nga. di jaajëfal parce euh. que c'était pas évident. sama wér-gu-yaram mayu ma ko. waaw effectivement effectivement waaw nangu bi xat na xat na trop tamit xat na nga profité de l'occasion pour mun a ñëw. Ah. tamit parce que lii tam bu ñu ko defutoon tamit dina doon lu diis trop si ñun. ànd nit ki huit ans ñu lay dégg. Hmm. di gis. Hmm. tey jii opportunité la pour ñu sant waa Sénégal. ñi nga xamante ne pendant les campagne bu ñu doon dem ñoo doon ñaan. Hmm. lépp lëpp pour Sénégal am ndam te Sénégal bu amee ndam rek ñun Matar am na ndam. te Matar bu amee ndam rek Macky Sall donc di sant ñëpp di masawu coono ñëpp di baalu àq ñëpp nag ñi nga xamante ne tamit xëy na ci ay jamono ci ay kii amoon nañ lu leen métti ñu ngi leen di baalu àq ñi nga xamante ne tamit bëggoon nañ gis Matar wala ñu joxoog moom tamit jeexagul Matar mi ngi nii doomu Sénégal la bougé wul fen mhm. mi ngi fii matin au soir njabootam fi ñëpp ngi fi ku ko soxla ubbi na ay buntam tàllal na Sénégal yëpp yokku mais tamit di sàkku ñaan ci ñëpp ñu gën ko ñaanal gën ko jàppale parce que ñaan ak jàppale la gën a soxla moment bi mhm. parce que mataar kuy dem la incha allah Ibrahima ñu lay jaajëfal Ibrahima Fall di fàttali kon euh, conseiller bu maire bu Fatick en charge de la formation professionnelle maire bu Fatick euh, mi nga xam ne kon euh, moom moo génn ci lii di gouvernement bu yees bi ki ko remplacé di Yankhoba ca tara ñu ngi lay jaajëfalaat di jaajëfal itam kon mbokku internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel euh, sa su ne di jox dig daje kon lu yàggul dara rek beneen inter jaa ngeen